waa mbokk yi gis ngeen ko nii ñu ngi fii ci Grand Yoff euh, xaar yàlla fi naan monument gis ngeen ko ni euh, fii nag benn immeuble bu quatrième dal bi quatrième moo jóge ci kaw daanu ci suuf mu amoon ay ouvrier yoo xamante ne nii ñoo ci nekkoon di toj dal bi gis ngeen ko ni dal bi nag daal di mab bu jógee ci kaw ba ci suuf daanu ba ci suuf ci bësu aljuma ji nga xam ne tey ñu ngi ci douze wala treize gis ngeen ko dal baa ngi nii donc fii la ouvrier yi nekkoon di toj lii lañu doon defar dal bi daal di màbb bu jugee quatrième jaar troisième deuxième ba premier ba ci suuf ci rez-de-chaussée ma amoon ay place cantine yoo xam ne fekk na ko fi donc nag gendarme moo ñu ngi fi police ñëw na ñëpp ñëw nañ di def seen liggéey pour xool mais actuellement mënaguñu wax ñaata nit ñoo nekk gum ci ñoo ci wàññeeku waaye liñ jot a jot comme ay information am na ci kenn koo xam ne ci ouvrier yi donc bi mu commencé daw kenn rek moo ci rëcc moo ci daw génn gis ngeen ko ñu ngi ci kaw terrasse bi ni ci kanam tuuti danañ wàcc suuf wan leen li ngeen xam ne moom moo fi jot a xew ci liggéey bu rafet bi nga xam ne gendarmerie ak police ñu ngi koy ànd di ko defandoo donc bëri na nit nag fii gis ngeen ko nii donc dal baa ngi nii fii ma nekk nii quatrième bi lii lañ doon def mu daal di màbb jóge ci kaw premier un deux ba trois ba quatre am na ñu ci jëkk nag ci appartement yi ba léegi instant bi euh, mënagul ñu joxe benn résultat parce que gendarmerie ñu ngi nekk def seen liggéey comme ni mu waree waaw waaye li am te daal mooy danañ leen toppal information bi donc euh, lépp loo xamante ne ni xew na fi rek danañ leen ko jox en direct fii ci senclic point comme wala fii ci senclic TV donc gis ngeen ko noonu daan wàcc ci suuf jël li nga xam ne mooy bâtiment bi jël li nga xam ne moom moo fi jot xew gis ngeen ko donc fii quatrième la ci kaw terrasse lii la ouvrier doon defar. donc ouvrier yi nag bari woon nañ waaye kenn moo ci rëcc donc ñi ci des yëpp ba léegi xamaguñ fu ñu nekk donc ci kanam tuuti ñu toppaleen information bi donc leen gis ngeen ko noonu gis ngeen ko noonu lii mooy bâtiment bi gis ngeen pax bi gis ngeen na màbbe muy noonu màbb dem waaw xaaral ñu jege si tuuti won leen ko bu fekkee mën nañoo jël le maximum xam gis ngeen ko waaw dañuy wàcc suuf nag wan leen li ngeen xam ne donc moo fi yi ba tey senclic point com di leen toppal information bi gis ngeen ko donc dal baa ngi nii di quatrième étage la comme ni leen ko waxee sànq dafa amoon ay ouvrier yu fi nekkoon nag doon ko liggéey dal bi moom dem ba ci suuf ci seen wàccee deuxième troisième dem ba ci quatrième seen donc ci information yi ci jot a jot nag am na ouvrier fi nekkoon mais ba tey gendarmerie ñu ngi topp sapeur ngi topp di waaj def seen liggéey donc liñ mën a li ñu mën mooy wan leen événement bi wan leen image yi ku toppaleen information bi ba keroog ñuy am résultat final waaw gis ngeen ko noonu gis donc fi woon nag donc gisaguñ ci kenn dañ ñu leen leen toppal information bi ndàkk ndàkk lii moo màpp gis ngeen ko moo màpp wàcce ci suuf ñu wàccee nag am na benn euh, boutique bu fekkoon ci suuf mais yàlla dafa def kenn gaañu ci ndax fekk nañu dem juma gis ngeen ko li yàlla def gis ngeen gis ngeen nekk di dafa def gis a ngi nale police di aare rek naa gis ngeen la presse aussi ñëw nañ teewee nañ seen jël ko ci poto bi. xaaral fabrication kon échange bi kenn de foofu kenn de su ko xool. li des léegi xam ñu doon toj am na ñu doon toj. ah amoon na ay ouvrier ci biir. waaw

Marlon, mi papá, está en una de las zonas